ma dox maa ngi jóg ba Masaalikul Jinaan fa laa jullee tisbaar waaye bu dul woon sax ma leen fi jëkk ñoom waaw maa ko dama ko dox waaw ma ñëw ba fi ñu ma dem nañu ma jël kaar fay ko fukki dërëm mu wàcc ma fe ma ñëw teewe ko su ma doxee ba ba ba ba di leen jàppale am lu tax ma jàppale leen bëgg sen njëriñ ak njëriñu réew mi doxuñu pour pour seen bopp bu doon seen bopp du ma dox mais sama réew mi la ñu doxal te li ñuy dox ci yoon lañ ko teg barke borom Tuubaa buñ ci dëggal woon ci yoon du ma ci dox du ma ci wax dama teel ni seetaan rek waaye comme ci dëgg lañ ko def te dëpp liñ ko defal naa leen jàppale yàlla dañ leen jàppale sëñ Tuubaa dañ leen jàppale te yéen yi li leen di jàppale yàlla leen jàppale torop fuuf noonu la gën a moo tax ma jóg lu mu méttee ci nun moo tax ma jóg ci ku jógul ma jóg ku jóg ma jóg looloo tax ma bi kay waaye weesu nañ ko bétit bi passé nañ foofu léegi. courant bi kay suñ ko yokkee ñun ñuy fay kay ñoo gën a concerné sama kër ñett ñett sa ñetti morom nga fa amuñu liggéey jàng nañ ba am diplôme amuñu liggéey may continuer dafay courant te retraité la kon nag su fekkee ñoom Guy mari Sagna ñu jóg ñoom ñi nga xam ne am lañ lañ fayee courant docteur Babacar Diop am lu mu fayee courant yow mii nga am loo fayee courant caméraman bi am lu mu fayee courant ngeen jóg taxaw fii ñun ngeen ko defal kon nag jekkal yoon la ñu ñëw ànd ak ci xeex bi Guy Marius Sagna deful dara waaye ma dafa sàcc xaalis déedéet dafa rey nit déedéet dafa violé déedéet dafa dafa def faux monnayage déedéet dafa jël engrais déedéet dafa jël semence déedéet dafa tabax immeuble ak ak argent sale déedéet dafa jaay drogue déedéet lan la def bëgg réewam bëgg askanam bëgg continent am loolu rek a tax alors ma ragal nag nañu defoon bu la Omar Blondin Diop Yoff euh, ñu def ko ko ci prison bi loolu laa ragal moo tax ma ni déet du am métti bi moom ñëpp ko yëg képp kuy fay courant da nga xam ne courant bi dafa métti waa tex dëkk bi amul xaalis nit ñi dañoo sonn ñun mag yi dañuy jóg ndaxte ñun ñooy fay courant xale yi fay ñu courant ñun dañoo ci gën a sonn surtout ñun yaay dañoo sonn ba bëgg a dee lekk ñu naan il faut ñu jóg nag jéem a yëngatu nag laal tuuti moo waaw moo tax ma ñëw luy bëgg a dee wéqu wala foo ko wax dafay bëgg a tar-tar goo xam ne danañu jóg par force pourtant am na ñoo xam pour mobiliser leen yóombul te ñoo gën a sonn nu dañoo nekk ci biir askan wi di gis lu nekk am nañu ñu lool waaye kii dafa ñëw xoqatal nit ñi jël say force de défense leen teg sa kaw peuple ñuy maate peuple bi factures yi voilà boobee tam askan wi attanuñ ko. ki ki am na kuy sooxaale loo xam ne ci yaramam ak njabootam akum njàngum doomam te mënu ko nga bëgg ko cee yokkal ay facture loolu mënut a nekk nañ ko teg ci suuf nañ ko teg ci suuf loolu mënut a nekk.